tout spécial euh, doyen Modignan euh, mu nekk fu mu toll nii euh, PCA yéenekaay bi di Le Soleil ñoom mbégte lool di ko fi dalal ngir waxtaan ak moom si tolluwaay jamono tolluwaay jamono bokk na si wàllum koom wàllum reddition des comptes ak tamit wàllum liberté yi nga xamante ni bëri na ay gis-gis yu waroo yoo xam ne see am. ak tamit législative yi nga xam ne nii moom la ñu euh, dëgmal waaye tamit lépp dina si waxtaan ak moom euh, si wàllu bu bon gouvernance euh, surtout parce que lu ko soxal la mu yàgg see wax yàgg see bind yi tamit doyen maa lay nuyu te ngeen ñuy teewlu. waa Diallo maa ngi lay delloo nuyoo di ziar bu baax a baax di ziar aussi ñi nga fi nekkal. doyen bi ñu la tabbee def la PCA Le Soleil am na ñu mu bett am na ñu mu bettut yow ndax lu la bettoon la ndax loo xaarum la am déet. yàlla xam na ko ne bon ñi ko doon xaar nag war nañoo bari parce que keroog bi ñu ko waxee ci euh, conseil des ministres. li mm-hmm. trois heures ma woo ci téléphone kenn xam ba dama mujj sama nopp yi metti ma coupé téléphone bi. Mm-hmm. le lendemain c' était pareil boobu vraiment bon ma ni alhamdulilah rabbil alamin am na ñoo xam ne au moins seen xel waaye nag man bi may ne damay jàppale Ousmane Sonko. wax naa ko fépp nee naa leen sama jàppale gi séenuwuma ci dara lu ma séenuwul loon ci Abdou Diouf séenuwuma ko ci Abdoulaye Wade séenuwuma ko ci Macky Sall du ma ko séenu ci ñii dama leen di jàppale parce que dama yaakaar ne li ma gis ñoom gisuma koon ci ñee yaakaar rek ma defe ne bu ñu leen joxee réew mi danañ ko teg ci yoon ma ni kii de danaa ko jàppale te dama wax ci sa kanami moroom ne leen mhm. yoon wi mu jaar feeg wàccu ko danaa ko jàppale bu ko wàccee rek

man ma waxtaan ceeg sama njaboot waxtaan ceeg euh, une dame là euh, à qui j'ai beaucoup de respect waxtaan ceeg sama jeune frère ñoom ñëpp ñu ne ma daal yow da ngaa compliqué da nangu da ngay alors bon j'ai donné mon accord. Mm-hmm. li ma ci gën a kii sax mooy kañ fa nekk kañ ci la bi directeur Lamine Nia. Lamine Nia oui. dama doon échangé ak moom pendant au moins trois ans te mosunoo gisante ma nga Canada. Mhm, Canada la nekk waaw keroog bi mu ñëw fii laa laa mas a gisante ak moom. Mhm. loolu euh, ma ca gën a sax moom ma gën a kii quoi. Mhm. moo ko tàmbal ma nangu ko mais bu ma déggee entre nous nit ñi dema président daf may xaw a kii. waaw ah, léegi président nga de. waaw mais moo di ñaan président day jàll bërki dem nekkuma ko peut-être. kii mën na am. parce sax daf ñuy dimbale xam nga ñun ñi pour ñu jaar sa tur directement sax daf ñuy jafe yenn saa yi doyen ah. la ñu wax. mais soo waxee président day gën a yomb. waaw waaw waxal président rek waaye man de. <laughs> yow Mody la gënal. Mody moom a gënal Mody gi xam ne moom. Hmm. moo njëkk te mooy mujj. Hmm. mun mais nag bon. mais sànq say biir wax yaa ngi naan wax ne la waxi lii wax la waxi lee mais danga ne hmm. il en de question. loolu lan la woon ndax yeneen proposition la woon am am am bon je ne rentre pas dans les détails Il y a une proposition mais à mon âge je ne peux pas rentrer dans les détails aussi. mais sa âge aussi avec sa parcours avec son expérience aussi il y lu mu la may. Euh, waaw si li benn si nga mais beneen bi aussi di le président de la république. Ah. si sa jaar parce que nous ñu bëri dañuy jàpp ne ay gone waaw te àndu gone aussi de nous nga ah. euh, de manière. Euh, Euh, traditionnel. Mhm. que ay mag aussi ànd ak ay gone di leen xelal dafay am solo. Mhm. d' accord naa ci loolu gis nga loolu. Mhm. bu ñu ma defuloon dara li ma nekkoon ci lay nekk ànd ak ñoom. d' bañ leen 24 mars ba ba bu may nommé. je faisais moins de contribution parce que léegi mbind mi dafa ma xaw a kii damay xaw a mais damay def ojo yu bëree bëri. li ci wax li ma xalaat. ak ni ñu war a doxalee réew mi. dama leen di wax tout le temps ne leen na ngeen fexe ba ku ngeen teg béréb sangam. lépp ci xeer bi ne ne ah kii kii de war na faa nekk. Mhm. waaye moytu leen teg nit ñu dem ñaari fan ñett ñu eh kii démb moo tax bala ngeen teg na ngeen seet démbam. Mhm. barki démb te yéen it lu ngeen def ak lu ngeen wax na méngoo ak la ngeen doon liggéey na ngeen nekk des exemples bu ko defee rek. xeet bi leen di dimbale bu boobaa da ngeen mën a teg réew ci yoon. d'accord mais doyen te loolu laa doon continuer bu ñu ma defuloon dara it dama leen di accompagner ba ma ba ma gis lu ma xamul waaw. doyen yow tam ku la xam sa xam sa jaar-jaar xam ne. Mm. Mm. nomination du lu lay tënk lool. parce que mm. bi nga nekkee OFNAC. nekk si biir tam bi nga demee ba gisatoo loo xam. et puis sa fi nga nekkoon permettre la woon. nga mën a am liberté bi nga bëggoon am. danga fa bàyyi li nga amoon sa OFNAC. continuer say bind. ndax loolu yi tamit mën leen xaar. c'est juste une euh, hypothèse bu ñuy teg. bu gisatoo loo xam. Mm-hmm. ñu ne doyen ñaar démissionné na. Mm-hmm. PCA Le Soleil. Mm-hmm. continuer waat di bind c'est vrai que loolu it ñaanuma mais bu ma demoon ba gis lu ma xamul. Mm. loo xam ne lii ña ko fay def muy loo xam d'accord ca. Mm. loo xam ne gënul ci réew mi loo tax taxul ma ñëw fa. Mm. loola moom bu ko defee na ma defoon lay def waaye fii moom jàpp parce que le garçon que j'ai trouvé là-bas. Lamine bah, pour le moment daal doy na ma. Mhm. et dembe def premier conseil d'administration. administration. membres ma ci gisit des gens d'expérience. le Lamine Niang aussi limu mu def il a de très bonnes idées il a des projets amna yo xamni buñu ko réaliser soleil dina benen Benen beneen jëm. Mhm. wa loolu mom leer na. ñu ngi sax légui soleil si. digital bi aussi. ñu ngi def jéego am solo ah, ci digital beeg. Mhm. yépp ak projet yo xamni par exemple boo demee bibliothèque bibliothèques bibliothèque Soleil c'est extraordinaire vous imaginez ce qu'on numérise numériser mhm. ce serait extraordinaire. parce que nous avons def papiers oh là là des papiers profonds. profond. Mm, quoi gouvernement, non gouverneur la war mhm. le ministre de la communication le premier ministre le président de la République. Euh, kooku euh, ak kooku daal ko numériser mhm. ce serait extraordinaire. nga xam day disponible en ligne en ligne. loolu bokk na ci projet mhm. euh site web etc cetera yooyu bokk na ci projet il a de très bons projets té buñ ñu koy ñima ñi en conseil d'administration ils sont déterminés vraiment à l'accompagner à nous accompagner inshallah D'accord. accord hmm. euh, doyen donc loolu c'était hmm. juste pour hmm. ñëwaat. Euh, si tab bi nga xamné ni aussi euh, tab ne la ni ko wax non la demee ñu bëri amoon ci réaction nan doyen Modou parce que ñu bëri aussi ñu gis la seen wet. day daral sen xel. Lolu tamit ça sera di doyen. waaw sas la kay parce que amna lo xamni bu la ko nit ñi xamal dina ko seedeel am na loo xam ko man damay dem ba yàgg may nan di ñaan sans borom. Mhm. li ma nit ñi seedeel.

saf la aussi si. Hmm. ñi nga àndal. waaw si yor li ñu réew mi. waaw ci maanaam. si ñoom. Sonko Jomaay. waaw sas la si ñoom tamit. ah man de ak jublaa xam ak gëm li ngay def te man jàpp na ni mu ngi ci ñoom jàpp naa ni gëm nañ ko jàpp naa ni euh, li ñu waxoon bu ñu deful lépp it danañ ci def la cëpp ci li ma yaakaar. te bu ma leen sañoon a jox ndigal loolu la leen di wax la ñu waxoon daal bu ñu deful lépp bu doon téeméer nañ def juróom-ñeent fukk bu ñu def ne Macky Sall bu ñu def ne Abdoulaye Wade. d'accord président Macky Sall sax dinañ ñëwaat situation mais hmm. euh, doyen. Hmm. six mois yi bu ñuy hmm. xool si wàllum.